dalli nag jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di laal daal dina jàmm Kouthia moom jamono ji ma ngi ci guddi gu bët setegul ndaxte li nga xam te moo di ay ojo yoo xam te moom moo ko amal jamono ji mi ngi ci toile bi mel ni mbàccum gerte moo xam te ne bépp audio bu génn beneen génnaat beneen fële fe beneen fëlaat fële mujj de mel ni kaj euh, lii di euh, paxi kaña Euh, nekkaat leneen moom Kouthia moom nag ba mu ci réagir dañuy ki nga xam te ne moo di kenn ku nekkan soxnaam ay jamono mooy génne li nga xam te moo di audio yooyu nekk Kya mi nga xam ni euh, ay jamono dañoo nekkoon ñaar waral moom mel na ne dañ koo piraté ci li nga xam te moo di ci compte WhatsApp am ba bépp message boo xam jot na ko kooku da koy man di jot euh, waral audio mi yëpp daal di génn ci mbedd mi moom Pape Cheikh Diallo moom moom sax weddi na kàddu yi nga xam te ne fésal nu ko ci moom ci émission bi nga xam te ne maa ko doon amal moom